lu ngeen xamul Ousmane Sonko avec tout le respect qu'on lui doit Ousmane Sonko ak Fulbert Sambou étaient des camarades d'école ñoo jàngandoo au CMT de Ziguinchor oto Didier Badji fi ñu ko baasoon Cap Manuel oto baa ngi foofu ñu baase ba léegi lan na ci biir nag ñoom ñoo ko xam ci biir oto bi enveloppe mi ngi fii te am naa ci ay lu leer naññ que ne enveloppe boobu permis Didier mi ngi ci biir enveloppe bi carte d'identité Didier mi ngi ci biir enveloppe bi carte professionnelle Didier mi ngi bi sa carte bancaire mi ngi ci biir enveloppe bi lan moo ko man bi may dox sama kalbe mi sama poos sama kalbe bi tey bu ñu ñëwee ñu fekk ko padoa bildeuse lan moo ko yóbbu padoa bildeuse ki ko fa yóbbu mooma sàkkal pexe ñi jëlaat balagaasu Didier yooyu yóbbu ko ci oto Didier ñoo sàkkal Didier pexe te ñi sàkkal Didier pexe ñoo sàkkal suñu classe Fulbert Sambou pexe